ñu ngi sant mbokk yi nag ak dëkkandoo yi ak xarit yi ak wëllëre yi ndax mbooloo mii fi dajale kenn ku ci nekk xëy na ne amul jot waaye daa am loo séq ak ñoom ba jikko ci ñoom mu sax nga suuxat ko ba mu màgg moo tax njaboot gi toog fi mbooloo mi toog fi di xaaru cérémonie bii jot nag bariwut waaye dama bëgg ñu xam ne bëgg gu yéeg moo koy fay sag yéeg ci nit ñi ak sag faale ak safoo moo waral mbooloo mi daje fi kon nag ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ Modou day buñ dikkee ci tànt bi dañuy bég lool xam ne li fi sa bàyyi bàyyi woon yàqoo ci dara da nga ko yokk ndax mbooloo yombut rawat na mbooloo mu nii ay bokk ak i xarit ak i dëkkandoo ak i kilifa dajale ni yombut kon na daje jamono yii ku dajale mbooloo mu nii ak qualité yi ñu am xamal na kat am nga loo jiit ñoom ba tax nga am lii kon nag loolu xolub sëñ ji la ndax bu kon fekk fi ñett nit képp mbaa ñaar kon day xam ne liggéey bi sooxe na waaye at mu jot suñ dikkee dañuy fekk mu gën a fulu gën a bari ndax ñëwul sëñ Muntaxa fu mu teew doomi sëñ laa teew fa defe naa loolu jotaay bi moom mëneesu am lu gën a weesu loola. yaa bu loolu waaye it ñu xam ne jotaay bi lislaam moom li nga xam ne moom moo sa ëpp solo mooy bu kilifa gi toogee rek bu xasee joxe ndigal daanaka ndigal loole mooy dox ndigal li nag li ci ëpp doole. ay julli lañ ay taalibe lañ waaye li ñu yàlla subhaanahu wa taala mooy nee na binduma nit ak ginne lu may ñu jaamu ma kon nañu wóor ne day jaamu yàlla rek ak liggéey moo fi nekk lépp lu waaye mën a def lu jaamu yàlla ak liggéey yow yaa ngi nax sa bopp ndax yàlla subhaanahu wa taala loolu la digaloon yonente bi alayhi salaatu salaam sëriñ tubaa xaadimu rasul mi yaakaar tey ëllëg it si loolu la nekkoon loolu it la sant taalib yi nga xam ne ñoo topp si ginnaaw bi nga fa jugee rek lu yéem sëriñ bi nag te xam naa ne ba muy sotti loolee mooy alalu sëriñ Mor Asta Dia ndax bi nga fa jógee sëriñ bi daf maa woowaat ba ma dikk mu ne Maam Mor ma ne ko Mbàkke mu ne yaakaar naa ne kaamil bii sëriñ Touba joxoon Cheikh Mahamadou Bachir sëriñ Bachir yëkkati ko teg ko sama loxo gëm naa ne mooy kaamilu sëriñ Mor Asta Ndiakalak ga mu ne ma nag moo ko gëstu nag ndax kaamil bi jaaxal loon na ma lool ndax bind bi set na rafet na sell na mu ne ma xanaa maam Mor sëñ Mor Asta dafa bokkoon ci bindkat yu mag ya ma ne ko Mbàkke xanaa dama koy bëgg a xam de loolu laa ko tont xanaa Mbàkke dama koy bëgg a xam mu ne waaye gëm naa ne kaamil boobu moom moom rek la mën a doon. kon kàddu yi kàddu yi sant la bu baax ndax sëñ bi njaboot gi. xarit yi ak soppe yi dëkk ci gox bi yépp ci sa ndigal dañ ñoo jàpp di ñu jàppale taxawuñu ci fànn yépp nag rawatina ci li nga xamante ne yëngatu jëm ci bis jëm ci dëkk bi ñuy sàkku ñaan nag sëñ Abdou Khadre Mbàkke ñu ngi baamtu kàddu yi di sàkkuwaat nga ñaanal réew mi ñaanal président de la République Macky Sall ba naal yi am ci askan wi am ko ci réew mi yëpp yàlla jàppale ko ba matale ko